may mun a jéey ki nee nañu bàyyi nañ ko hmm. est sax dafa tawatoon lañu wax bàyyi nañ ko euh, ginnaaw bi ñu ko téewee incha allah daal nee nañu mi ngi ci liberté provisoire ak sous contrôle judiciaire mu ngi nii euh, ginnaaw ba ñu ko jàppee dellu na ci njabootam hmm. waaw na góor góorgóorlu muñ rek te xam ne fi mu nekk ni moom ñu nekk si biir ak ñu nekk si biti ñu ñëpp ñoo yem contrôle judiciaire la ñu nekk ak bàyyi mu ne gëndiku ñun ñëpp Sénégal gépp nag laa la wax comme si man di doon ko yaakaar ne bokkoo ci rek yaay première bi ndax tey jii lu bëree bëree bëri da nga ko gis nga xam ne carrément li dëgg la loo war a wax mais il faut nga moytu nangam nangam iska nangam da nga ko moytu di ko wër la daloon bi ba boo tuddee rek ñu ne Yaya Jammeh daanaka fi mu toll nii mu ngi Sénégal kon fi mu nekk nii na na dem nekkaat ci li mu nekkoon te xaar leen rek na Sénégal bu nekk bàyyi xel ni bët bu set. Hmm. boo ndekkee sa kër man ngaa añi ji police boo ko defee rek dara du la bett. Hmm. Hmm. d'accord jërëjëf waaw mu mel ne gaa yi ngi xam nañ bàyyi nañ bàyyi waaye mel na ni am na ku ñu yolomal koo xam ne téewoon nañ ko ci fan yi passé waaw alhamdulilah ñuy sant yàlla parce que lu am solo la mhm. euh, di ñaan ñeneen ñëpp ñu topp ci delluwaat ci seen njaboot mhm. euh, parce que loolu bokk na ci li nga xamante ni baax parce que gis nga am réew euh, asana nga koy junju sànq mhm. lu jëm ci wàllu tée waaw tée bi nga xamante ni moom la ñuy wax noonu Euh, du ñoom ñi nekk ci kaso yi rek lañ téye maanaam téye nañ ñu bari ñoo xamante ni bii tey dangay génn ci mbedd mi tàllal nit micro laaj ko sa xalaat ci mbir mu ne déedéet kooku téye nañ ko da ngay toog ci tele bi am gis-gis xalaat mais nga ne est-ce que xalaat bi wóor na ma wax ko kon téye nañ la léeg ngay génn say njaboot ne la mooy moytul mm-hmm. am na noo xamante ne bii waroo koo waxee donc ñu ngi téye xel yi te yooyu yëpp xeetu tée la kon dama jàpp ni du ñi dugg prison ñooñu dañoo ñi gën a mettale mm-hmm. waaye tamit am na ñoo xamante ne bii tamit ñu bari ñi ngi ci bitti mais aussi tamit lii seen xalaat waxatuñ ko mm-hmm. am réew nag bu ñu demee ba nga xamante ne bi nit ñi joxetuñu seen xalaat joxetuñu seen gis-gis maanaam bu ñu toogee ñun ñëpp dañuy comédie maanaam dañuy mascarade di orienter di régler mais suñu vrai gis-gis. Hmm. waxatuñ ko réew moomu kon xibaar information état amatu ko. waaw ah, ndax noppaloo nañu bari amatut information. parce que ñi ko daan informé moo tax boo gisee fan yi yaa ngi jël ay groupe WhatsApp yoo xamante ni bi léegi. Hmm. Euh, dañuy boole mbir mi kon day dem ba gën a garaaw maanaam gis nga boole yooyu ñu ñu ñi ñu jël naan ñiy nervi la ñoog nii ak lii maanaam victime yooyu ngay jël fan yi mhm. euh, loolu mooy dem ba nit ñi dootuñu wax ci groupe whatsapp ñu waxati fenn te nit ñi même bu ñu waxut fenn am na lu ne ci ñoom loolu nag fan lañ koy waxee mhm. donc xibaar yi ngay jot ne réew mi nee na calme dal na dalut mhm. ñoom ñoo orienté fi ñuy waxee seen dëgg la ama tey ji bu ñu toogee ci suuf di waxtaan di nga gis ni dinañ waxtaan mhm. am na loo xamante ne bi boo koy waxtaan léeg nga wax ko kenn wala kenn wax nga ne ko na yem fii bu mu yéeg ci kaw mhm. cela veut dire que li ñuy wane nekkul ni dëgg-dëgg loolu mooy li nga xamante ni bii mooy li xew. Mhm. donc nag loolu mooy li nga xam ne moom moo commencé di am. yooyu amoon na ci ay dëkk yoo xamante ni bii moo taxit Euh, nit ñi bu ñu amul lu ñuy wax maara day taal da ngay jékki-jékki rek bu nit ñi di kii dalay bett da nga naan lii xiinut xëy taw. xëy taw parce que président Macky mës na wax baat bi sax daat ne troisième mandat. coow loo xam ni. xiinut xiinut xëy taw. waaw noonu la yenn yi di amee day jékki-jékki rek du xiin xëy taw nga ne lii nan la demee ak dëkk bi ni mu kalmee woon fekk dëkk bi. Hmm. mosul calme. ah mais waa ji kat dégg naa démb mu di ko wax ci wax sa xalaat. Mhm. nee ni mu jàngatee réew mi daal euh, daan baax fi wóorul ndax ku fi baax jëlee nañ la fi. <laughs> baax ñëpp rek ndax li mu nekk ci imaam Alioune Badara Ndaw duggu ci ñoom Sonko fépp ak bu bari daal nee jub fi wóorul. Eh, waaw c'est jub fi wóorul. waaw xam nga waa xam nga loolu moom. loolu moom. loolu dañ lay diaboliser rey la. dañuy ànd ak ay yoo xam ne dañ lay diaboliser hmm. imam Aliou Badara man hmm. na fi. ah yow jaar bi. ñu dem pistolet gis nga bi ñu bi ñu ko fekkee yóbbaale na ko xale yi ci doon fo mu ne ko ci keesam bi pistolet googu dañ ko cee boole woon daal ni yor nag pistolet yu garaaw ay hmm. xam nga li gën a garaaw mooy gars dañ lay téye ba pare génnee xibaar amoo foo weddee doo dégg loolu mooy yi nga xamante ni mooy li gën a metti mhm. waaw. li am metti na.